gën ci jullit yi mooy ki jullit yi mucc ci loxoom ak làmmiñam kon loolu sax sarax la kon weer wi weeru sarax la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne saraxe ci weeru koor moo gën a foor fuuf saraxe ci biti weeru koor kon ngëneel la lu nit mën a joxe ci sarax yonent bi dalaan tabe lépp lu xamoon daf ko bokkoon ak ñëpp amul lenn lu mu daan denc ci lu am njëriñ loolu mooy bokk na ko jaam yàlla yi kon saraxe aji ayda suñ ko loon summarize ci ni ko nit ñi mën a déggee mooy lépp loo xam mbaa nga xam ko te mu xam njëriñ ci àdduna ak alaxira nga shea ko bokk ko sa bokki julit yi loolu mooy sarax in général mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam lépp la joxe woon lépp lu ko yàlla mos a jox ci lu baax bokk na ko ñëpp lépp lu mos a xam ci lu baax xamal na ko ñëpp loolu moo tax mu nekk di rahma di cadeau boo xam ne yàlla ko jox mbindeef fi jaarale ko ci yonent sallallahu kon ñu ngi ñaax bokki jullit yi ñu yokk seeni loxo ci sarax ku nekk fa nga tollu xam na loo man loo xam ne boo ko defee mu nekk sarax loolu ñu nga gis ne culture boobu islam am moo tax islam buñ ko appliqué comme ni mu ko tëralee ñàkk du ma sa am ci kaw suuf ndax sarax dafa yaatu dem na ba lu ñuy wax wil sarax la lu ñuy wax gift muy maye ci xeetu sarax la bokk na ci dimbale Euh, maanaam lu ñëw wax waqfu muy endowment xeet la ci xeetu sarax te yooyu yëpp sadaqa jaariya la nit ki su ko mënee di ko def mu des ci société bi di jëriñ doomu aadama yi di jëriñ jullit yi yooyu yëpp xeetu sarax la kon kenn ku nekk fa nga toll mën ngay génnee sarax. waaw euh, kaadi boo nekk euh, kenn ku nekk fu mu toll mën na génnee sarax waaye ndax sarax dafa am ñu ko moom. waaw. Mhm. sarax bu ne ak ña ko xaajo. Mhm. néewoon na ku ne ci société bi sax te soxlawul sarax hmm. ndax yow su fekkee da nga am xam-xam amuloo alal kon si yaa ngi soxla ku la jox alal hmm. su fekkee ne da nga am alal amuloo xam-xam kon yaa ngi soxla ku jox xam-xam su fekkee ne mag nga yaa ngi soxla ku la dimbale kon de saraxam nag jox nit alal hmm. boobu moom moo am moo am limite waaye comme sarax bi nga xam ne ci concept bi ma koy waxee ñëpp ko soxla ndax fu mu nekk nii fi ñu toog nii sax ma yow di waxtaan mhm. eh, suma essence laa dawal ñëw egsi fii di jox doom doomu aadama yi li ma yàlla baaxee ci xam-xam yow itam nga jël sa wax sarax la ñi koy déglu nekk ci kaw suuf ñu ngi koy jël ñu ngi koy receive daa nga dégg kon sarax bi nga xam ne mooy dafa généralise ñëpp ko soxla kenn ku nekk lu baax loo xam rek te doomu aadama yi soxla ko nga fexe ñu jot ko ci lu yomb loolu sarax la mhm. amaana bu dee sarax ab jël nit jox jox alal wala asaka bi ñu waxoon kooku ñi nga xam ne wax dëgg yàlla amuñ parce que ni ñi dañoo nekk ci gis ci am ak ñàkk ñi gën a ñàkk lañ lañ ñi gën a taamu ah, ñooñu juróom lañ yoo xam ne alquran tudd na leen ak ñu mel ni ñoom waaye taraxut sarax say joxe say bokk yege ñaare say dëkkandoor même luy waral nit ñi bëggante sax loolu yëpp xeetu sarax la kon dafa yaatu ci concept boobu mm-hmm, mm-hmm. su ko defee boobu benn la wax nañ a ah, jàngal quran wax nañ naafila wax nañ saraxe mm-hmm. bokk na ci itam yi nga xam ne baax na ci weeru koor wi ci fukki fan yu mujj yi ñu dundal sunna bu ñu ooyee li'tikaaf li'tikaaf yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko defoon moo ko sunnaal mooy lan mooy dem góor ñi nag la yàlla waaye jigéen ñi ñoom dañ leen ko jégal ah, ndax li muy doon mooy dem ca jàkka ja wala jumaa ja joo xam ne fu ñuy julle jumaa la du nekk jàkka Mm-hmm. ci jàkka duñ ko fa defee fu ñuy jullee jumaa lañ koy defee toog fukki fan yu mujj yëpp jël sa bopp ak sa xalaat sa jëmm yëpp jox ko yàlla boole ko xoor nekk fa ba bañ bañ ñu ne weer wi feeñ na suba la julli gi nga soog fay génnee loolu sunna la yonent bi salaa daan na ko def ba am na at bu mu sax daf ko fay ci weer wa nga xam ne mooy weeri korité mm-hmm. kon loolu ñu ngi ñaax ñi nga xam ne am nañ jot seen jot may ko ci ndaw ñi ci mag ñi ñu def ko ndax loolu dafay yokk yiw ak jàmm ci biir ab société. ñuy dem ci jumaa yi. dem ci jumaa yi. Mm. saax fa loolu la ñuy wax i'tikaaf nit ñi xamuñ ko fii ndax dund lañ ko. Mm-hmm. waaye boo demee Madina Munawara wa demee Makkatal Mukarrama. Mm-hmm. boo demee ci réew arab yi macha allah sunna boobu dañ bu baax a ñu ngi koy def. di dem ci jumaa yi am na ñoo xam ne ñetti fan lañ mën a am ñii ñeenti fan ñi juróomi fan. ñi mën a jël fukki fan yu mujj yëpp def ko fa loolu yëpp ngëneel la ko xam ne gu ñuy yokkee tiyaabo ak ngëneel ci jaamu yàlla yi nga xam ne bi waaw jàng alquran mm-hmm. ñaan julli mm-hmm. di xaatir ci borom bi subhanahu wa taala di xaatir ci xéwal yi di xaatir ci àjjana ki ñu gim ñu dikk ak la fa nekk ci xéwal di xaatir ci safara ak lafa nekk ci mbugal yooyu dafay wecci nit ki mm-hmm. dafay wecci kon ci gëm yàlla daf koy gën a diibloo mu gën a dëgër te loolu lañ ko sopp ci ab société te loolu nu mu gën a bëri ci société bi rek jàmm rek moo fay nekk yiw rek moo fay yokk tasaaroo boobu itam sunna la ci yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunnaal na ko bokk na ci sunna itam yi nga xam ne ci fukki fan yi ñu jublu si nii nga xam ne ngëneel yu bëri moo ci nekk nga xam ne ci leelatu xadar bi nekk ilaa parce que moo tax leelatu xadar boobu nekk ci fukki fan yi mujj yi moo tax ñuy ko dàkk nag ci béy leex te kaaf ba nga xam ne dañoo taamu su fukki fan yu euh, duggee nit ñi ñëpp yokkaat seen seen jaamu yàlla gi ndax ñu jéem a dàkk guddi googu ngir li ci nekk ci ngëneel jaamu yàlla mm-hmm. su defee na demal na ci càkk ja fukki fan yëpp nga ne ko fa léegi nga maam kon su baa yow fukki fan yooyu xalaat kulli xaal jeex nga ko ci biir fukki fan yi làmbatu nga da nga ko fa am mm-hmm. loolu bokk na ci yi nga xam ne taamu nañ ko ci eh, weeru koor waaye ay ay day tam bokk na ci yiñ taamu ci weeru koor képp koo xam ne mën nga ko ci biir weeru koor wii nga dem omra ah. si nga julli yi léegoo léeg suñu kolco def ñu yëcc ñu am leneen lu ñu fëkk hmm. nga gis ne ñu bari bu ñu amee alal buñ buggee noppalu ji dañuy dem ci yeneen ba dem nga maam da li fay fiix ci hôtel yi wala fa jàpp ne waaye jullit hmm. dara rawut mu am alalam waxtu weer koor wi jot mu dagg tikitam dem mu mukarrama daje fa ak mbokki jullit yëpp nga xam ne fu nekk ni ñu ngi béy ci gox àdduna si fu nekk ñu bokk fa di jaamu yàlla ci xanam goo xam ne yow boo demee makka rek boo ñëwee xeeb sa bopp lépp loo mënoon ba nawu ci rek ba demee makka rek dajé kul ci man lolou la ben goor wax mu ne lepp lo mën boy da nga mëna a jàngal Alxuraan ba na gis ñoo xam da nga nan ñi bu dee julli la nonu bu dee mëna joxé la da nga fekk ño xamné ne ñooñu mom da nga rek moy daal adina demet bu dee bax la la bir bari xam-xam mëna jaamu diko ko yoyu nak nit ki di dem ci place yooyu di gis jaamu yalla yi ni ñoo jaamu yalla mu ñew yokku ca undiwaat ko ci réew mi lu ko gën ci weeru koor wi gënut amu amut mm. ndax yonent na ne al umratu fi ramadan taadilu xijjatun ma'i mu ne umra ci biir weeru koor ngëneelam daa tollook ku xaj ànd ak man waaw comme ni nga xamee noonu la waxee ne afdalu sadaqatin sadaqatun fi ramadan mooy sarax bu ñu génnee ci biir weeru koor noonu itam la umra naafila umra baaxee ci biir weeru koor mm. kon jullit bi ah, dañoo taamu ci moom aji ayda mu accéléré mbooleem xeetu jaamu yàllaam ndax dañ bëgg mu raxas tilimam yi ndax ruuxu gi ak jëmm ji ci diir bu yàgg bi nga xam ne ñu ngi ko bàyyee ci tuuti yoxamal ko mu xala am freedom dafa am yeneen yu dugg ci moom yoo xam ne yooyu gënut ci moom daanaka poison la ci ruuxo gi mooy àdduna bugg àdduna dund ci leneen ndax boo demee ci borom xam-xam ñu ngi nettali ne moom weeru ko moom xiif li tax ñu def ko mu nekk jaamu yàlla mooy bakkan xiif moo ko gën a mën a gaaw a yar ci mboolem xeeti yar yi nga xam ne moom la bakkan ay yaroo ba ñu ngi ci nettali benn xadis ñu ne a ah, bakkan yàlla daf ko yóbbu yóbbu ci géej ak géej ak euh, ci safara lu yàgg euh, euh, ba mu ko génnee ba mu ko examen bu féelaat mu yóbbu ko ci géej ak sedd noonu mboolem xeeti mbugal yi def na ko noonu ruux nag moom bañ ko dugalee ci xeet benn xeetu mbugal rek ci la nangul borom moom ni muy ne moom mooy boromam mu nooy ci ronam waaye bakkan dafa të bañ dugal ko ci xiif bañ ba bañ ko xiif looy rek mhm. ci la bakkan xam ne moom mii nag am na borom kon nga gis ne woon xiif gi ak mar gi biñ koy def ci bëccëg bi nañ ko teewlu ne jaamu yàlla la mas naa am euh, benn weer koor ñaari at ci gannaaw ma xala tawat dem ci benn docteur moom nag du mu cag ma mu ne yéen jullit yi da ngeen di def loo xam ne dafa dafa ci seen yaram ma ne ko lan la mu da ngeen di or or du baaxut ci yaram. moom noonu la ko gisee. waaw ñoom moom noonu la ko analysé. Hmm. su ko defee waaye ñun dañoo gis ne or gi dafa baax ci yaram ndax borom xam-xam yëpp nangu nañ ne sax jëmm ji or gi xiif bi daf ko yokk wér. Hmm. am na ñu def analyse ni buutit gi fukki weer ak ñaar mu ngi lekk du du dagg lekk naan lekk naan gu dégg bëccëg ñetti yoon ñeenti yoon di lekk di naan ba butik ci liggéey fu mu nii nag su weeru koor bi jotee butik boobu tamit dafaa jël liif ndax bëccëg bi yëpp yaa ngi yaa ngi ko téye lekk gi du mën a bëri kon yooyu aji ayda ay ngëneel la yoo xam ne taamu nañ ko rawatina nag fexe itam di dogal jaam yàlla yi ci sa wërsëg loolu itam ngëneel gu rëy la moo xam ci njaboot gi la nga bigal leen ci dog ndogu lu neex wala ñu dogee loo xam ne macha allah des na ko mën a jëfandikoo ci anam gu mu gën a neexee loolu itam tiyaabu rëy la naka noonu tam dëkk ndoor yi macha allah am na boo demee tey ci réew arabe boo jàppee Saudi TV yi yëpp nga gis ni ñoom jumaa yi yonent bi salaam euh, soo fa nekkee da ngay rus sax ajaayda da ngay gis ndeysaan euh, borom kër yi dañuy génn ak seen li ñu am